Rewmi 24 dal leen ak jàmm ci xibaar mardi 13 février 2024 mu mel ne wax ji nga xamante ne bari woon na ci Ousmane Sonko ci ñu doon wax rek ne ci seen dinaag Macky Sall déggante nañ téléphone loolee yëpp rek jàpp nañ ne dara amu ci waaye bu ñu xoolee député bi nga xamante ne rek moom mooy. Ayib Daffé ak ki nga xamante ne moom mooy Birame Souleye Diop tey jii gisante nañ ak Ousmane Sonko ca prison ba waaye lam leen xamal mooy moom jàkkaarloowul ak kenn jëlagul ak kenn waaye nag ma ngay sàkku ngir ñu daal di organisé présidentielle yi daal di koy jàpp ci date bi nga xamante ne moom lañ ko jàpp mooy vingt cinq février moom la Ousmane Sonko wax député bi rek nga xamante ne moom mooy Ayib Daffé ak ki nga xamante ne moom mooy biram Birame Souleye Diop ginaaw ba coow li bara ñuy wax ne rek Ousmane Sonko dafay bokk ci dialogue bi di ko rek waxal ne dañ koy libéré waaye kon député yi daal ginnaaw rek ma nga xamante ne tey ji xëy nañ dem seeti ji ko la ñu xam la rek mooy kii di Ousmane Sonko moom dialogue la kenn waaye ma ngay xam la ne rek élection yi nañ ko respecté nañ ko jàpp ci date bi nga xamante ne rek moom lañ ko war a def